tey régie sur vidéo Cheikh Omar Diagne bi pare ngeen jox ñu ko ñu gis ni que visitu kii nga xamante ni Jean-Luc Mélenchon dafa indi benn diversion jëmale ko ci famille religieuse yi indi diversion ci opposition bi démb ñu doon xeex pour ñu criminaliser lii nga xamante ni la loi LGBT au Sénégal tey ñooñu ñoo di tolérer la loi LGBT division bobu noo ko jàngatee demoon ba nga xamanteni ni dañu doon woowee seen bop ay religieux teunku ci l'islam vidéo Cheikh Omar Diagne. barki démb gis ngeen Mélenchon au Sénégal dégg ngeen ci ay wax yu bëree bëri. attaque yu bëree bëri attaque bi daf ma sax yépp daf ma jaaxal moom porteur la du projet LGBT depuis le début pax bi sa def si liggéey kon kooku fu mu mënti dem il faut mu def un clin d'œil à la communauté LGBT war leen ne man leen di liggéeyal waaye loolu bu ñëwee def ko Sénégal lu ndax ñoo war a yëngal bu ñu gisee góor jigéen ñoo koy ragal suñu bopp man si ñooñu laa bokk man mhm. suma ma gisee góor jigéen naa ragal sama bopp loolu kese moo tax bëgguma dëkk dëkk tubaab bi mhm. ndax bëgguma romb ay góor jigéen du ma si man dara ndax dëkku jàmbur laa nekk mhm. fu ma gis ñaari góor jigéen wallahi mu ray yoon si sam loolu ma jàngal way ray jet way professeur léegi nag coow yi mooy <laughs> bu ñu bañee ma nekk di rayee ci mbedd bi ñoom ñoo war a dimbali ñoo war a dimbali ñoom ñoo war a voter la loi ah, pour permettre pour jàmm am société bi nekk si jàmm Je vous le confirme, en effet, y'a je suis le premier législateur français qui est déposé un texte de loi à propos de la population de la possibilité du mariage homosexuel. suñu n'est pas ñoo ñoo nous pour nangu góor Eh bien, si aujourd'hui dans notre société le phénomène dont je viens de parler n'est pas accepté, il est toléré. Ça, ça, il nekk ci àdduna bi euh, ñoom amuñu baaxuñu. Euh, amuñu ay soppe. saa ñu dara li ñuy wax mi dafa un effet retour bi ne ñu lu ñuy xaar ci yow. kon vidéo Cheikh Omar Diagne ñu ko bu baax ci médiatique bi ak présence côté askan bi lu jëm ci parce que tey mon analyse ci Jean-Luc Mélenchon moom na Jean-Luc Mélenchon porteur de loi LGBT la aduna yëpp xam

Macky Sall ne du ko laal. Hmm. li mu fekk la fi baye hmm. ñom tay ño ñew waji taxaw biir université né mom moy le premier français bi porter loi bi nga xamanteni pour daganal mariage homosexuel. Hmm. c'est-à-dire suñu waxé mariage homosexuel du góor a kessé LGBT manam moy homosexuel ñaari nit yu bokk sexe. di sëy manam moy acte contre nature jigéen ak jigen di sëy góor ak góor di sëy tay góor bu dem sax di sëy ak mala. manam acte contre nature la. c'est-à-dire que nous avons dañu foog ne affaire góor jigéen kese la LGBT est transsexuel si la bokk moom nee na hétérosexuel la mooy ki am jabar am droit aussi am jëkkër nga am jabar pare am jëkkër yow nga takk jigéen pare war a amaat encore beneen góor bu la takk yow di la sëdde moom nee a loolu la nous avons waxoon suba lu tax du dem dëkku tubaab yi dafa bañ di rey góor jigéen ci mbedd bi mais góor jigéen bi fekk si na ko biir université te tey dañ ko nommé ci biir présidence de la république kon góor jigéen bi bu muy ñëw xamoon na lan moo ko tere woon jël pistolet dem fetal ko foofu ci université bi comme nu mu ko waxee woon day reyee lan moo ko tere woon bi nga xamante ni Charles Michel moom kenn werantee du góor jigéenam daf ko assumé ñëw na ba dugg ci palais bi lu tax ko aéroport bu ñëw fetal ko tey lii est-ce que lii du diversion bo xamanteni tay mo ñëw suñu autorité ñi ne woon démb criminalisé tey nee nañu tolérance est-ce que du lol mo indi tay ci xóol ban analyse ngeen ci xam nga xam nga manipulation bi mo feñ xam nga Sénégal dafa nek dëkk bo xam nak kay wax la len nak Tange mën nañ far ak yow mën nañu ànd ak yow mën nañ la jappalé politiquement mais góor jigéen mom kay duñ ko nangu. wa mais nañ seet ah. xaar rek ma ñëw gis nga fim toll ni gisoo bo gisee Mélenchon ñëw wax nga gis leen ñoom ñëpp di tartar yi c'est parce que xam nañ né affaire bi ñom bëgg nañ ko fi duggal parce que Tange fi Sénégal fi lañ tok ñu né Ousmane Sonko mais euh, euh, l'ONG l'ONG Oxfam mais da ko fay millions yu dul jeex lan lañ ñu wax daf daf len doon ñu ne dafa def lan dafa dafa dafa dafa def genre consultance motax ñu fay ko lañ ñu wax. Hmm. Oxfam lan la Oxfam ban ONG qui nek présent boo nañ comment faire pour libérer qu'on dépénalise. liberté d'amour liberté d'amour mais Oxfam si ce lay Oxfam pas jox la. mais quelque par am na lu mu séq ak yow en terme d' entente loolu ñu loolu ñu ñu ñu ñu nësal ko ñu nës nësal ko mu jàll. alors ngay dégg ci entourage Ousmane Sonko ba jaxate wax na ne la diw moom la mu am fa ay responsabilité loolu ñu nës nësal ko mu jàll. ànd sàmb jikko yi taxaw fii te dégg nga li Cheikh Omar Diagne wax waxuma sax baabakar Mbuub Babacar Mbuub mi taxaw ñëpp di ko dégg ne ba tey fii may waxanteeg yow nii ñun laaju mosu ñoo laaj. góor jigéen ñu criminaliser ko ñu génneel ko vidéo mi ngi ni tok mag mu toll ni kilifa gu toll ni ay sa ay moroomu dom di la vaar te mom moy da ngay fen mais dafa porter plainte ba mais mais mais naka porter plainte mais var bi leer na mu taxaw ñëpp diko ko mu ne Sénégal ñi ngi ni tok suñu premier problème moy liñu ñu joggé fi moy dougal texte de la Assemblée nationale pour que ñu criminaliser l'homosexuel mais lool Babacar Mbow moo ko wax wa léegi mën nañ dekk ci dëkk boo xam ne lu waay wax ren bu déwénee nga wax le contraire ku la weddi nga porte ko mais Sénégal ban réew lañ nekk finalement yow yaay wax di weddi sa bopp te ku la weddi ku la fàttali say wax nga porte plainte ah. mais nous sommes dans quel pays finalement ah te yow da nga wax ñëpp di dégg xale yi génne la var nit ñi la di nga waxoon tay, wax bi du dëgg nga dem di porte ni c'est-à-dire il faut qu'on soit sérieux un peu quand même dans ce pays ñu bàyyi aussi sénégalais yi ñuy fooye parce que attention

Mm-hmm. waxuma la sax di ko di ko mais valider mais loi bi rek pour di ko dépénaliser du dul du ko assemblée nationale. gis tolérance nous signifie consiste à accepter l'autre avec ses différences. admettre qu'il peut penser ou agir différemment. oui tout en restant notre égal. inversement moi, intolérance consiste à rejeter. jeex na Tange dama ne <laughs> dama Cheikh Omar Diagne li wax nii. Hmm. li wax hmm. discours de fermeté bii mu wax. Hmm. ne bu son góor jigéen de koy day jël fetal dóor ko ko. bu fekkoon ni gëm ko.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

Samba ma bàyyi la nga rebondir si. xam nga dégg Omar Diagne ci ñaari kàddu yoo xamante ni méngoowul. Hmm. man fu ma gis góor jigéen Sénégal dama lay fetal moo tax bëgguma dem dëkku tubaab yi tubaab bi jógee dëkkam ñëw fekk si la sa réew nga xam ko nga occupé fi poste tey suñu présidence suñu palais de la république. parce que moom la ñu nommé xaw ma lan moyens généraux muy lu ma njëkk dégg sama àdduna xaw ma lan la. Hmm. dégg naa ñenn ñi ne nañ mooy daaju présidence. Hmm. daaj genre daaj la la le matériel kooku tey.